la boo juddoo woon suñ ko ndokkeelee suñ ko nuyoo ndokkeel ko ziare ko ndokkeel ak mboolem muqaddam yi nga xam ne ñu ngi fi teew ak mboolem suñuy kilifa yi nga xam ne ñu ngi teew bi yëpp ak mboolem taalibe ak su ma la jugee damay bëgg a dugg ci mbiri li ndax boo limee dana gudd te doo matal waaye maa ngi dal leen nuyoo suñu baay Oustaz Barham Niang bi ñëpp xam-xam ba may agsi la toog tuuti rek lay jël kalimaam di di ko ziar di ñaan yàlla moo yokk mu fekk aw aw fanam may ko wér di ko ñaanal tamit Seydou Abdoulaye Dane di ko ñaanal Seydou Dane Seydou mu ñaanal moo ne moom xam nañ nga xam ne ñu teew fi ñëpp daal mais bañ a lim waaye ñëpp ci suñu kilifa ñu fi teew ci kilifa diine ak kilifa aada yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di lokkeel bés mag bi bés bii bés bu màgg la waxtu yi waxtu bu màgg la te yow nga wàcc ci gën a dëkk te Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu juddoo ci barab bi nga xam ne mooy Tayba juddu ci weeri Rajab nga xam ne arab yi ñoo ko doon tuddee ak ñoo ko doon tuddee Rajabul Fardi alquran moo ñu nekk ci ne inna iddata shuhuri indallahi itna ashara bi kitabillahi yawma xalaqa as-samawati wal arda minha hijja ak muharram ñoom ay suuf la yoo xam ne mu détaillé la waaye rajab moom dafa def fële inqiraat moo tax al fard ñëwee ñu ñëw ñu ci weer bi nga xam ne alquran lam ca teg mooy wala tazlimu bihinna anfusakum kon li muy teg mooy dañ ko war a màggal wala ci koy seen bopp kon loolu mooy yar bu war a màggal la hadis boo xam ne moo ñu firil ay ma tarine dama naa ko ci beneen dégg ndax yoon bi dafa wax ne inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma xalaqahu yawma xalaqa Allahu samaawaati wal ard mu ne jamono wër na ba ak si waat ci jamono ji nga xam ne ci la yàlla bi la asamaan ak suuf kon bu fekkee ne ci rajo kon loolu jeexal na koy defee zaman bi nga xam ne tasaare kay xëy ci yow xam nga sama wala sama loolu waa yu néew la woon ku ma wax ko li ma ciy teg te jeexalee ko mooy ñi judd ci weer yoo def ñoo xam ne dañu leen tuddee ay kilifa dina bëri nañ waaye Cheikh Ibrahim mooy borom weer bi lii tegtale ci loolu mooy moom rek وجبني حقا لجبر الجسر فإنني وكيل سر سر الجبر هو رجب لم يتبع جيم بارا رجب جيم بارا ليس تحكيم رجب جبر وأنا أولدني حقا لجبر الجسر فإنني وكيل سر سر ndax bu Cheikh Ndiaye doon junj di wax naan Cheikh Ibrahima juddoo woon nga xam ne ba mu juddoo ci la jub juddu ba mu juddoo ci la leer juddu ba mu juddoo ci la barke juddu ba mu juddoo ci la xam-xam juddu ñu ngi sant yàlla bu baax borom bi di wax ne alhamdulilah rabbil alamin te amul baat bu ëpp loolu tey Cheikh Ibrahima mën jàngal ne bu joxee alhamdulilah rabbil alamin teewal gi ñu ngi koy yooyu dañ ko kon ñu ngi koy wax ngir tënk teewal gi nga xam ne alquran li mu wax mooy wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha benn neema la ba pare ne mënu leen ko lim réew bu doon ci benn kenn nga ñëw na benn lim bu waaye mu ne réew bu doon lim réew ko jeexal kon neema la boo xam ne ay neema la ci biir ndax lan neema yi تبيد النملي على الصفا في ليلة الظلمة mu ne bokkaale yàlla moo gën a nëbbu santalañ bu lu bu tuuti bu ñuul boo xam ne ma nga yukki yukki yukki te doj bu nga kub ci guddi mu ne bokkaale gën a teew loolu Cheikh Ibrahim kon bu ñëwee la Ibou Diouf waxoon ne lëndam ci loolu lëndam tërës xaw nañoo dee ci neen yaa ñu tëgg yaa ñu tëgg si li ma xam xamuñu yàlla si Ibrahima